beaucoup donc un plaisir la ñuy am dalal la ci sa disponibilité vraiment. Mhm. Euh, c'est pas la première fois ñuy ñuy daje ci plateau yi donc dañuy dem directement ci li nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee d'abord gis nañu collectifu 21 lu tolloog euh, plus de vingtaine de candidats. Mhm. Euh, bind nañu recours ñoom ñëpp jibal ko conseil constitutionnel. balaa ñuy ñëw ci cas particulier ñu ñëw ci cas général. waaw cas général bi da nga naan bu doon marché nawetaan koñ la. football nañ match bi ba pare kii gañe gañe na kii ñàkk ñàkk na mais ñii ñàkk dañoo porter réserve loolu la ñuy tuddee porter réserve réclamation. Mhm. te réclamation yooyu effectivement code électoral da ko prévoir ñu ne conseil constitutionnel bu génnee liste euh, provisoire ñii nga xam ne demoon nañ ci élection yi may nañ leen quarante huit heures pour ñu dem def seen ay réclamation mhm. bu ñu defee seeni réclamation conseil constitutionnel da siy àddu balaa muy génnee liste bi donc 48 heures yi lundi la woon ak mardi donc mardi si ngoon defe na xam nañ à 18 heures ñëpp ñu def seen ay réclamations daanaka il y a plus d'une trentaine de réclamations loolu moom nañ ko xam il y a 21 candidats provisoirement retenus mais les réclamations dépassent le nombre de candidats donc ku si nekk nag yoon moo la ko may. ku ko def it que tu t'appelles Thierno Alassane Sall Amadou Ba Bachir Fofana yoon moo la may loolu te ci yoon bu la ko may ci la conseil constitutionnel di sukkandiku nag pour xool ndax yow lu nga def ci réclamation jaar na yoon wala jaarul yoon mais man laa la dafa am euh, loo xam ne man damaa jàpp ni conseil constitutionnel da ko def. Mm-hmm. te xëy na bu ko defee it euh, man gis naa ni warul woon nekk. gis nga conseil constitutionnel au lieu de faire son travail dafa ëffal candidat yi. maanaam dafa jouer rôle arbitrage. déedéet du arbitrage ëffal laa wax arbitre da ngay àtte mais kii dafa ëffal. <laughs> d'accord dafa ëffal candidat yi parce que ëffal bi mooy yow dañ la wax ni article L 121 code électoral. Mhm. mu ne juróom-ñeent pièces yi ku ko amul ku ko matlewul sa candidature baaxul. Mhm. ñu ne da nga war a indi. parrainage. da nga war indi caution. danga nga war indi copie carte d'identité légalisée. da nga war a indi casier judiciaire. danga nga war a indi certificat de nationalité. danga nga war indi attestation sur l'honneur que yow amoo xaar ma yàlla ak waa impôt. danga nga indi euh, defe naa. Euh, da nga a am trente cinq ans. merci. da nga am ay parti politique yu ngemb soit soit un parti soit une, coalition de partis wala nga nekk entité indépendante mhm. après nga def une déclaration sur l'honneur mhm. que lépp lu ngay déposé ci kayit c'est conforme mhm. voici man sama gis-gis dama jàpp ni conseil constitutionnel ragal a def liggéeyam moo tax mu jëllax ko candidat yi te ñeent pour man bokkoon na ci li nga xam ne conseil na da ko waroon def ñeent benn bi vingt et un nga retenir indil nañ la casier judiciaire qu'est-ce qui t'empêche yow nga bind ministre de l'int de la justice wala procureur mm-hmm. ne ko ñii ñu indi fii seen dossier lan mooy seen situation judiciaire mm-hmm. kon ku ci am condamnation xam nga mm-hmm. ku ci amul condamnation xam nga yaa ngi dégg loolu mooy benn ci ban vérification yi ma jàpp ni waroon na am te amul deuxième bi da ngay bind ministre de l'intérieur ñii ñëw déposé seen ay dossier ay parti politiques ñoo leen gemb mais quelle est la situation légale de ces partis politiques est-ce que parti yi lu yoon wax sartu yoon euh, réew mi wax par rapport ak parti nan la war a tëddee ci réew mi est-ce que parti yi motal nañ ko wala motaluñ ko. mais Bachir balaa ngay avancer foofu noonu bu ñu fa taxawee bu fekkente ni conseil constitutionnel euh, dafa nar a xool ci loolu est-ce que ñuy jàll dina bari. mais bien sûr parce que pratiquement euh, yu bëri. li ñu ñuy matal li ñu war a matal pour que seen parti di évoluer la plupart mataluñ ko. mais là la on parle président de la république. ok président de la république bu dee yow dañ laa fal sur du faux tu n'es pas un bon président. dañu la war a fal ci lu leer dañ la war a fal avec des papiers yu leer. Mm-hmm. ay parti légalement constitué et cetera donc bu fekkoonte ne dañuy def vérification bi ñu am benn candidat mais nañ xam ni loolu lañu ñu am. ok donc deuxième vérification bi loolu la troisième vérification bi ñoom def nañ déclaration ni amuñu xaar ma yàlla ak fisc ak impôt. Mm-hmm. mais dañoo war a bind waa impôt ñu laaj leen ñii est-ce que ñoom lu ñu bind dëgg la. c'est sur la base de ça ngay dem ci quatrième vérification bi demal aéroport yow ba ngay tukki dem Maroc fan yee passeport sénégalais nga yor. effectivement yoroo passeport marocain. Mhm. kon xam nañ ni génn nga réew mi ak sa passeport sénégalais. Mhm. kon dañuy laaj waa aéroport ñan ñoo génn réew mi ak beneen passeport. parce que ku génn xam ne ku dugg xam na. dëgg la donc ñeent vérification yooyu boo ko defoon di nga xam ci est en règle et qui ne l'est pas ça te permet de dire ñii ñoo war a dem wala ñii warut a mais conseil constitutionnel dafa jël mbir mi jël lox ko parti politique yi candidats yi ëffal leen seen biir toog di leen seetaan et donc malheureusement aujourd'hui même si c'est la loi ki donne à ces candidats la prérogative de faire ce qu'ils ont fait mais c'était dû au conseil constitutionnel liggéeyu conseil constitutionnel la candidat yi nekk di def nii d' accord donc comme ni nga ko waxee c' est important mais tey bu ñu taxawee ba tey ci cadre recours yi tey dafa am lu xew sénégalais yu bëri ku ci nekk am ci aperçu muy le premier ministre di Amadou Ba euh, tey mu taxaw ne carrément dafa def recours jëmale ko ci Bassirou Diomaye fay ak ci ki nga xam ne moom mooy Cheikh tijan Dièye euh, gis nañu motif yi ñu joxe comme quoi que dañoo bokkoon ci benn entité boo xam ne dañ ko dissoudre beneen point bi mooy euh, dafa jàpp investir euh, dañu falsifier seen ay documents wala boog nekkul ay parti yoo xam ne reconnaître nañ leen maanaam taf yëngal lañ ko mën a tuddee. waaw mu nekk loo xam ne ñu bëri jàpp nañ ne bu fekkente ne élection yi inclusive la war a dem yooyu yëpp mënoon na ñàkk. waaw xam nga nag élection inclusive euh, lan la man damaa jàpp ni c'est de l'escroquerie politique chaque jour mu wax ko. pourquoi. toutes les élections sont inclusives mais muy Sénégal ak feneen ak feneen réew boo mënti dem. dafa am ay charte yu tax nit bokk ci élection ak yu tax nit mënut a bokk ci élection yaa wax léegi nga ne trente cinq ans Sénégal nous sommes dix huit millions de Sénégalais sur les dix huit millions de Sénégalais soixante dix pour cent ont moins de trente cinq ans d' accord nañ ci loolu kon ça veut dire que y' douze millions de Sénégalais yu amul trente cinq ans pourtant ñooñu mënuñoo am candidat et pourtant on dit que l' élection est inclusive kon arrêtons cette escroquerie élection inclusive ça ne veut dire. élection elle est inclusive parce que ku war a bokk di nga bokk koo xam ne kii am na lu la tere bokk munoo bokk munoo bokk ci élection yi c'est pas parce que 12 millions de Sénégalais bokkuñu ci élection yi que l'élection n'est pas inclusive arrêtons sax donc loolu mooy benn deuxièmement maintenant wax naa la ko sànq candidat yi yoon moo leen may ñu am lu ñu naan porter réserve ci keneen que tu t'appelles Amadou Ba que tu ma Maxuja que tu t'appelles Masamba Mademba peu importe l'essentiel moo di nii da nga naan est-ce que lu mu def yoon may na ko wala may ko ko loolu mooy benn ñeel bi nag nga ñëw maintenant ndax dina am ndam ci lu mu wax loolu conseil constitutionnel mooy àtte ndaxte tey jii nii man dama bokk si ñuy wax naan peut-on bannir une association et bénir les membres de cette association tey jii bu tey bii est-ce que dinañ la ne bouteille bi dafa salte nga war a naan ndox moom ba pare nga naan noo est-ce que ndox mi set na donc loolu noonu c'est des faits. ah waaw mais mën nañ tas association aussi nit ka bokkoon ci association bi génn dem bokk feneen. waaw mais boo demee. ça c'est une possibilité mais sauf que boo demee dans le code des obligations civiles et dañ la ne ku nga xam ne dañoo bokk ci njiit ñii nga xam ne dañoo bokk ci njiit association bu ñu tas am na délai boo xam ne waruñoo mën a bokk feneen loolu aussi c'est dans le texte. maintenant maintenant est-ce que loolu la wala leneen la xaw ma mais man je te dis ce que disent les textes. d'accord ok maintenant Amadou Ba a-t-il le droit de le faire s'il pense oui mais Amadou Ba lu mu def man gëm naa ni opposants yi ñoo ko bëggoon def mais ñemewuñu ko def. pourquoi. mais est-ce que tu penses que aujourd'hui ceux qui sont opposants et qui ont été validés dans le parrainage là est-ce que ñoom jàkka est-ce que ñoom jàpp nga ni dëggantaan laa la bëgg ñoom bëgg nañ candidat Pastef dem bëgguñu ko. waaw mais loolu ku nekk ak sa lecture aussi. non opposants yi bu ñu sañoon candidat Pastef du dem pour électorat Pastef ñu mais au nom de quoi est-ce que est-ce que bu fekkente ni seen candidat yi jàllul est-ce que dañuy dem rallier carrément. non loolu beneen débat la. waaw non non cest dire possibilité fi nga waxee loolu moo tax ma wax la. la wax ni tey jii nii lan la li Amadou Ba def. opposants yi dañ ko ñemewut a def mais ñoo ko bëggoon def. j'en connais ci ci ci Ousmane Sonko. ci Ousmane Sonko Bassirou Diomaye j'en connais ki moom félicité man pour laaj ma. waaw est-ce que bu ma ko defee politiquement dina baaxam du baax mais ñu noonu ñemewuñu c'est-à-dire que tey jii des opposants nourrissent secrètement l'idée de voir les candidats issus de Pastef être éliminés loolu mooy dëgg. kon kay mën na jàpp ni ñoom dañu ragal a bëre comme. non mën nga ko tuddee ragal a bëre. xam nga ah non mais bu fekkente ni aussi da ngay dem e-, élection ba pare bëgg tànn say adversaire cela veut dire que yow pare woo kenn tànnul adversaire loi mooy tànn kuy adversaire làmb ji moo teg ay règle am ku ci bokk bokk ci bokkul bokk te làmb ji moo ne bu ñu demee ba tànn ñi war a bëre boo d'accordul ci mbër mi wala nga am réserve nga mën ko porter kon nag tey jii nii kuy bëre ak ku dul bëre du loolu ragal adversaire amu fi droit bu ñu may Thierno Alassane Sall mu ne d'accordul ci Karim Wade droit bu ñu may keneen mu ne d'accordul ci Mamadou Aliou Dia droit bu ñu may keneen droit boobu lañ may Amadou Ba kon nañu nangul Amadou Ba son droit de faire euh, usage de son droit de recours la où peur de le faire parce que dañoo dugg ci ay logique politicienne maintenant la Amadou Ba wax am na wala amul Pastef de pas un parti dissous kon moom bu fekkente ne jàpp na ni ka bokkoon Pastef warul mën a dem ci élection yi mais ba muy ba muy dem di déposer aussi nañu lijjanti ci ban entité la demee mais n'importe peu importe c'est-à-dire que ñett entité moo am article L57 code électoral mhm. nee na parti politique moo lay investir wala coalition de parti wala nga demal candidat indépendant mhm. mu ne la pour être indépendant pour être indépendant il faut n'avoir jamais été militant d'un parti politique wala ba nga jógee parti politique bi ak léegi au moins am na at donc on sait que Bassirou Diomaye Faye mënta doon indépendant bu dul loolu dossier am du jàll mhm. donc parti politique moo koy investir wala coalition ban parti politique la xaw ma ban coalition ban coalition la xaw donc loolu loon te maintenant pour qu'on former une coalition code électoral da la ne il faut minimum deux partis. d'accord donc loolu noonu maintenant moom jàpp nañ ni nu ñu coaliser nu ñu kiiwee et cetera bu dee dañ ci am ay information on saura parce que yàggatul. tey le dans tous les cas le 18. le 20 mhm. gannaaw suba la. waaw mhm. ndaxte tey jii nii. au plus tard samedi incha allah dinañ xam kuy candidat ku dul candidat balaa ñu koy xam nag recours yi ñu déposé yii nii yëpp mhm. c'est des recours qui seront examinés dinañ xam lu si nekk dinañ xam lan la conseil constitutionnel décidé mhm. dinañ xam ndax Amadou Ba sa requête va passer ou ne la va pas passer mais mhm. dire que lu tax moom def mu def ko mais pourquoi on ne pose pas cette question te nee naa la y a plus de trente recours qui sont déposés d'accord